langue politique ak ñoom seen euh, li nga xam ne nag ki nga xam ne moo di Amadou Ba euh, mi nga xam ne moo jiite euh, li jàmm ak njëriñ listam mu ngay ami ay problème Abdoulaye Dieye daa dinay génn maire Diass daa dinay génn ndax nekk ñu di saboté li nga xam ne ki nga xam ne moo di Amadou Ba non xam nga seen ànd moom ñoom la ànd politiciens yi la rek mm. dañoo mënatul ànd ànd parce que ñoom motif bi ñu évoqué tamit mën naa leen ko nangul parce que nee nañ ñoom duñu voté contre Macky Sall loolu kay du leen ko bañal mm. mais est-ce nekkuñu aussi di saboter ki nga xam ne moo di Amadou euh, mënatuñu mënatuñu euh, euh, moo di Amadou Ba mënuñu voter contre Macky Sall te gis nañ ne moom Macky Sall moo tànnoon Amadou Ba ci élection yi nga xam ne moom lañ daal di génn ndax lool nekkul un petit règlement de contre à l'intérieur de non ñoom daal ñoom loolu mën naa leen ko nangul comme Macky Sall ji na leen ngor ñoom meluñ ko Mamboy Diawo meluñ ko ñoom laa Lassana Gagny Sakho meluñ ko Mary Teuw Niane ànd nañoo Macky Sall ci ngor Macky Sall jeexal ñëw na nee nañ seen ngor mayu leen ñu bàyyi ko fi dem seeti ñeneen ñooñu nag ay gor lañ mais am na ñoo xam ne ay jaam lañ biñ gisee nguur gi xaw lañ daw ñenn ñi sàcc ay rapport di jox Sonko ñenn ñi di ñuuluñu weexuñu bàyyi fa Macky Sall wëlbati ko di ko xas ndax bi ma gisee Laasana Gaañu Saaxo toog ci may mun a nduur fay di xas Macky Sall dama dama dama reetaan mm-hmm. moo tax gars yi nag vaar ko indilaat ko vidéo yi mu doon tàggee ñoom Macky Sall di xas ñoom Sonko ana gor ñii est-ce que am nañ ay doom hmm. ay doom yi bi di affronté sama genre yi ci mbedd bi amuñu ko foog na loolu hmm. nga foog en tout cas euh, ñii euh, rocceeku bëri nañu ku ci mel ni Moustapha Niass euh, waaw ñooñu ñëpp kóllëre bu ñu amante ak Macky Sall parce que Moustapha bu déggee président grâce à Macky Sall mais président Macky Sall bon ex président Macky Sall parce que foo être respecté président la la le président c'est le président c'est Bassirou président Macky rek titre bi du dañ à la léegi tey ñëwam est-ce que moom Macky Sall déjà sénégalais dinañ ko may li eh, nga xam ne mooy mu teg tànkam ci biir eh, Sénégal donte ñoom dañuy wax ne lim fi def ay ñaawte laak ak ñoom seen waaw ñoom ñoo gis ñaawte fii mais am na ñoo xam ne gisuñu ñaaw te Macky lim fi def a ngi fi de 18 autopont du caaxaan de xanaa loolu moom du ñaawteef dix-huit autopont ñaata aéroport hmm? ñaata stade nañu waxante dëgg ñaata ñaata bourse familiale dagg nañ ko sax couverture maladie universelle Macky Sall dafa gàtte woon réew mi Covid 19 ak Ousmane Sonko rek ñoo ñu yàqal mais réew mi heure bi émergé woon na bu yàgg Sénégal Covid 19 a ñu yàqal ak Ousmane Sonko. Mhm. billaahi pourquoi ba Covid 19 je peux comprendre que euh, tasoon na réew mi pourquoi Sonko tu parles comme si Ousmane Sonko dafa bañ euh, Sénégalais en fait. non si daf ñu bañ Ousmane Sonko euh, problème Ousmane Sonko li ñu yàqal ci milliards bi mu au pouvoir ñu yaakaaroon Ousmane Sonko daf ñuy gën a indil ay milliards mu continuer di ñu yàqalaat ay milliards te li ma lay wax lu leer la lu factuel la. Mhm. Macky Sall dafa tabax réew mi ba mu rafet aéroport bi ba tey terre bi jaar fii avion yi bateau yi décalaat terrain bi VDN euh, terre bi barki de moo Ndiaye am na ñu fa xëm euh, ñu bëri ne Macky Sall liggéey bi mu fi liggéey dara jagu ci ah dangay bañ mais ñu bëri ne almaalik Njaay tey mooy tooxi doona musiba naaru laay mi dal transport bi te maa ngi ciy profité di fàttali transporteurs yi mm. nee woon ay muucukatu deret ngeen bu leen ko fàtte néew nay muccukatu deret ngeen da ngeen a ëppal lu ne yàq na leen ko fi nag élection jub si na muy yaru yarulu bu leen fàtte xam nga mbir mi fàttali day baax gis naa tamit ñu dem école catholique di leen jéem a baab bu leen leen sax lijjanti mm-hmm. comme bi bi bi élection jub siwul daal yàq nañ leen ketembe mm-hmm. gis naa tamit ñu naan dañuy ubbi ubbi lu dossier Cheikh Omar ki Bakki farkas kenn siiwul xoromul bu doon maay sëñ baara bu dooli sax damay bàyyi noonu garaawut baal na leen baal naa ko moom thème de campagne moo dul am ren ren far fépp la fat est que xam nga ne euh, projet programme passé dina génn ko daal di génne. amuñu programme parce que yëpp mag yu dajaloo di fen xale yu dajaloo di saaga seen moroom yi bàyyi. Hmm. lii de moom moo fi seen programme. Hmm. lii doo nga fa am de man de gisuma fa leneen. yow projet bi ñuy wax depuis. projet amul yow nga ne euh, programme amul. projet amuñu projet. lañ tawari woon yëpp ñu ci tuus. le 14 dara du génn ah bon dara du génn lu dul seen waxi bopp luñ fa wax seen i waxa ñun daal PSE moo ñu sagal ci lañ nekk nii ñoom nag ñu ngi tàlleer réew mi gis nga sànq damay doon ñëw ci Ousmane Sonko dafa nekk opposition di ñu yàqal ay milliards. Mm-hmm. mooy taal na suñuy alal taal reylu ay bakk ci ay ci ay ñam Ousmane Sonko loolu doyatu ko de bi mu egsee au pouvoir mm-hmm. secteur yi doon génne xaalis. di dugal ci réew mi secteur yëpp commerce gis nga boo réer rapport euh, kii bi. nu mu tey euh, d'ailleurs am na yenn kaay bu titre ne investisseurs yi ñu ngay daw. ñëppay daw wu. investir waxuma sax man ñii ci dëkk bi yor alal sax waroon a alal ji di tibb ndànk-ndànk parce xam dañoo xam ne ci gudd yu lëndëm lañ jëm. Hmm. set yow dëkk boo xam ne yow homme d'affaires yi ngay jàpp di tëj ci kaso bi. yéen réew yi bëgg développement yëpp duñ gaaw a jàpp homme d'affaires mën nañ leen di fayloo sax ay kii mais duñ leen gaaw a tëj parce que ki jiite entreprise yor ay mat trois cent personne nga xëy ne ko ràpp ci kaso bi weer dee fayul kenn à l'image de la ñaata nga perte ñaata nga perte ci impôt moo tax bi ay rapport ANSD ak euh, rapport FMI nee naa leen yéen da ngeen a baax rek mm. waaye FMI moom li mu wax ñun yëg nañ ko suñu biir yi yëg na ko mm. parce que boo nee secteur BTP. Mm. ñun gis nañ. Mm. travaux yi arrêté nañ ko impôt ñëw xaaj ba. Mm. weccat ngay jot léegi foo daan jote ay ay nangami milliards léegi xaaj bi ngay jot soo ñëwee ci ci sax secteur secteur informel bi yaa ma xam xale amatuñ luñ liggéey daw nañ soobu ca gaal ya secteur boo laal. Pastef yàq nañ ko. nañ ci presque onze milliards. kon ma ne Ousmane Sonko dañu nekk ci bi ñëw au pouvoir dañu yàqal Ousmane Sonko daal mbugal mu yàlla ci réew mi mu ñuy mbug pour yàlla moo ñu waroon a mbugal rek wàcceel ñu Ousmane Sonko hmm. waaw lii mbugal nga ko ci mbugal la koo xam ne koo xam ne yow da nga ne woon heure bi daaw hmm. non da ngay dégg ñu nekk Europe naan damay ñibbisi damaa war a ñëw Ousmane bu faloo dañuy ñëw yéen ñëpp toog leen ci réew mi bu leen jëlati gaal yi loolu nga doon dégg n'est-ce pas ren déggati nga ko maa ngi dégg keroog sax doom Bécaye Mbaye ji naan xale yu muñ leen da ngeen a yàqamti ma ne ko yow di nga muñ parce que chaque weer alaaj njaay daggal la salaire hmm. laa yab hmm. ñun maa ma ne ko Modou Mbaye maa ngi yow yam bu weeree bugaan ngay daggal ma salaire alaaj njaay daggal la salaire su demee ci ay suñu borom ndaw amuñu luñ ñu naan leen muñ leen yabeel am na dañoo war a maandu ci ñoom kay bàyyi leen ñu gérer seen bopp niñ ko mën a lijjantee hmm. comme ñañ yaakaaroon tas nañ seen yaakaar léegi ñoom Modou Mbaye la ñuy yoon ñu leen di jéem a di leen gëmloo dëkk bi metti na te mettiwul ci moom mu ngi jéegam bu ne faaj yor këram sag weer alaaji nattal ko mu téye te bu soxlaa gis ma ko gis non metti mettiwul ci moom metti man de mettiwul sama côté ah, man mettiwul sama côté waaye man mettiwul sama côté ñu làmb jox ma mu téye faj samay soxla. Hmm. weer wu dee ñu làmbal Modou bokk si ñuy influencer jeunes yi ñu sama yoon newul ci ñoom de. xam nga tax sama yoon newul ci ñoom munu ma leen a joxub dépense munu ma leen a fajal seeni soxla doon naa leen coowal naan leen bu leen fal ñii fal nañ leen. sóoratu maandu laa ku man toog ku man toogal ku munul demal. de motivation quand même. man sama yoon newu ci la ma doon amoon ci ndimbal ko faa ñuy fal parce que nag waxoon naa ko moo gën a neex xamoon naa ko amaa ñuy fal laa ne bu leen fal ñii ñii mënuñu ñu ne ñu ne ñun dañ may fay yéene ji nag egsi na manum yéene woon nañ ne ma dañ lay fay ngay wax waaye toog muy dox day jeex buñ faloo di nga liggéeyi ba ci man sant naa yàlla bu baax seen yéene egsi na man it la leen doon bañal yéene wu leen woon la ma doon bañal tamit egsi na man ñoom ku nekk na toog muy dox gi ñu ma doon gàngal jot naa ji ma leen doon gàngal naan leen moytu leen ñii duñ ay nit ñu baax ñii warul leen nee na fal ñu dëgër bopp la ma leen kon daal inverse bi moo am waaw inverse bi moo am hmm. léegi nag ñu ngi nii dëkk baa ngi ne kekki bloqué li ma gën a man nag li ma gën a jox satisfaction arrêt cag-cag bi ma dëkk nekk sama koñ moom depuis daaw ba léegi ña ngi fay toog te depuis daaw ba léegi maa ngi leen di romb di xëy ña nga fa toog Ousmane Sonko nag war naa gëstu boy yi baraar boobu ngi koy taal midi bu ñu yeewoo minuit wi lay fay wala min une heure du matin moto ba la ñuy gaare ku génn ci koñ bi war a am loo yónnee ñoom nga yónni te loo dajale bu ngoonee ba dajale alkaati yi ñu ne la ana say këyit léegi après ñëw nit ñi yow nga taxaw di jaay ak populisme xoolal recruter sa benn bande mm. de influenceur ñuy wër di inventé ay chiffres di naan réew maa ngi dox yër say ministre TikTok kër mel ni réew mi man daal réew mi ma xool ko ay ministre tiktokeur yoo xam ne ma xool réew mi ma ne non Sénégal toog nañ wàllu <laughs> ministre saaga yi gis nga sif daan teg ci ñoom sëñ maayeeg kilifa diine yi rek mm-hmm. ci seen kaw mm. ak alali jàmbur yi daan taal musiba naaru laay moom rek mën nañoo topp Sénégal ci lekk ñax lañ jëm musiba topp topp musiba topp nañu ba pare ci lekk ñax lañ jëm ñax dund gi moom dina fi am day métti rek mais Sénégal yi dinañ continuer. baax na ci lekk ñax lañ jëm de. faut le souligner en fait yow ñu ngi wax sànq yaa ngi wax ay waxu ministre ak waruñu woon jël ay saaj teg seen kanam moom mi nga xam ne di.